trajectoire muy ñaari mbir benn bi dañuy wàññi euh, li nga xamante ne mooy superficie bi parce que dinañ jël 3 hectares ci Dantec euh, jaay ko pour mën a financer travaux yi mais beneen mbir bi dañ ko nar a tëj euh, ñi nga xamante nañ fa doon dem ñun leen ñuy dem ci dalal jàmm problème bu sénégalais yi di laajte nag mu xaw leen jaaxal mooy Dantec mi ngi doon exister di ubbi dalal jàmm di ibbi terewul dañ doon am problème place tey jii bu ñu tëjee Dantec ba noppi ubbiwuñu beneen alternative jëluñu ay camp euh, militaire teg ko pour mu nekk ay opital est-ce que sénégalais yi ñi nga xamante dañuy taw duñu gën a am ay jafe-jafe waaw ah, moom kay yeneen hôpitaux yi lañ nar a submergé mhm. mooy ay principal ak ay Fann ak mais xam nga euh, lii gën a doy waar Pape Matar mhm. mooy que euh, le Dantec ñu ngi ko tabax ñu ngi ko def Sénégal avant indépendance mhm. ñu ngi ko créé avant indépendance boobu Sénégal Euh, bu ñu matee quatre millions ci la ñu yem. Mm-hmm. ñoom ñu prévoir zone boobu tubaab yi. Mm-hmm. six hectares pour def fa hôpital bi avant indépendance. c'est vrai normalement soixante ans après. dañ ko war a agrandir. parce que mm-hmm. population bi gën nañoo yokk. surtout li ngay wax sànq ci densité Dakar. Euh, waaw surtout ci densité Dakar nga xamante ni xaaju population bi pratiquement fi la ñu ne. dëgg la bu nekkee euh, tubaab bi dañ dañ ko construire avant indépendance mun ci benn zone boo xamante ni six hectares la ñoom ñu jël trois hectares yi ne fa la ñuy def hôpital bi <laughs> bu ñu demee ba soixante ans après lu ñu war a def mooy population bi multiplier nañ ko par trois wala par quatre. Mhm. li ñu war a def mooy yokkute trois hectares yooyu nga xam. dara ne ko très bien ñu yokk ko def ko six hectares wala neuf hectares. en fonction euh, nu mu tuddati ni population bi yokkoo. ak demande yooyu waaw du loolu moo du loolu mooy idée bi. normalement ñoom xam nga euh, fi euh, Pamata. Mhm. ñii ay tappalekat lañu. déet waay si ay tappalekat lañu. Mhm. parce que bu nekkoon dañu bëgg tout simplement def loo xamante ni mooy jëriñ askan bi xam xam nga nan la def. Mhm. du ñu tëj dara du ñu tëj dara de yeneen fi fi trois hectares yi nekk foofu la ñuy dem commencer tabax infrastructure yi nga xamante ni bëgg nañ koo dolli ci hôpital bi. bàyyi fële muy kon ne di dox 3 hectares yi ñu construire far leneen lu ñu soxla parce que fi ne nii Sénégal fi fi ñu toll nii tolluwuñu ci moment wàññi structure sanitaire yi ñu am tolluñu fa de fi ñu toll mooy gën leen a yokk. Mhm. parce que soo seetloo maa ngi koy wax sax euh, trois hôpitaux yooyu Fann principal Le Dantec. Mhm. mooy ñetti hôpital ñetti hôpitaux yu gën a mag Sénégal. la ñetti yëpp amul ci benn bu fi état Sénégal tabax. yëpp colon beek fi bàyyi. Mhm. yëpp colon beek fi bàyyi. hôpital principal. pour mhm. militaires yi hôpital Dantec pour euh, euh, nu mu administration bi euh, ñu ubbi Dantec pour seen ñi seen dëggal hôpital Fann pour ñi seen xel neexul. Mhm. donc ñetti hôpitaux yooyu ñoo fi nekk léegi bu ñu demee 60 ans après li ñu war a xaar ci état yi nga xamante ni ñoom ñoo jël succession tubaab yi mooy ñu multiplier ces infrastructures là. du dëgg. léegi nag Dantec am nañu fa déjà loo xamante nii ça permet à beaucoup de population même si man li ma li ma yàgg wax mooy d'accord ma pour que ñetti hôpitaux yu toll noonu nekk ci benn euh, superficie bu toll noonu. Mhm. man je suis pas d'accord pour ça. cinq mètres cinq kilomètres carrés nga def fa principal def fa Dantec def fa Fann pour man c'est trop. c'est vrai dañu dañ ko waroon a déco euh, nu mu délocaliser délocaliser yóbbu leen feneen bu nekkee ne loolu mënul mënul nekk. <laughs> mais trois hectares yooyu lan xanaa <laughs> état bi ñu koo jaay pour ñu tabax foofu terrain de de football wala pour ñu tabax fa hôtel wala pour ñu tabax fa supermarché mënul dend ak bi noonu noonu. donc tey jii nii li nga xamante nii moo war bu nekkee hôpital bi dañ ko fa defoon trois hectares pour quatre millions d' mhm. tey ñu ngi dix sept millions d' habitants trois hectares yooyu dañ ko ciy dolli suñu mënee wutaat leneen dolliwaat ko ci gën def ko structure sanitaire digne kon bu ma la déggee Mame Birame euh, da nga jàpp ni euh, rénovation hôpital bi prétexte la rek pour mën a euh, jaay 3 hectares yooyu nga xamante ne ñoom moom lañ mais bien sûr tey xam nga Pape Matar balaa balaa ñu ne nu mu tuddati structure sanitaire yi au Sénégal moderne na mhm. balaa ñu ko wax ñu ne dégg nga un ministre sénégalais feebar na demul Maroc wala demul France Sénégal gii lañ ko interné mhm. loolu kañ dafi am temps Covid bi ñu tëjee frontières yi boobu rek la fi am de bi ñu tëjee frontière yi nga xam ne personne n'a la possibilité de voyager ci lañ commencé faju fii am na sax ñu naan ci la dee gën a bëree parce que structure sanitaire yi mënuñu leen jël en charge mais si donc lu bu baax bi ñu tëjee frontière yi donc tey jii nii li système euh, de santé bu nekk au Sénégal te li xew Tivaouane euh, dernièrement wane na ko bu deen ba mu xewoon Linguère la audit ba président de la République waxoon ne dañ koy def defoon nañ ko yaakaar naa ne tey dinañu découvrir benn vérité bu garaaw boo buy wane ne Sénégal structure sanitaire yi ñoom ñoo gën a feebar sax ñi nga xamante ñu ngi fay dem pour faju ji euh, Ramatoulaye euh, mm-hmm. tey jii euh, ni ko maam Birame waxee boo xamante ni dafay dem tolof tolof ci wàllu wér-gu-yaram di gën a bëri chaque fois ngay dégg ci yow mi sax da nga koy revue de presse ay sénégalais dañuy ñàkk seen bakkan parce que dañuy am problème prise de prise en charge boo mm-hmm. demee ci l'hôpital yi aussi ngay fekk nit ñi ñi leen di teg à même le sol est-ce que tey jii ñu woon ci fi nga xamante ne mooy dañuy gën a yaatal suñu l'hôpital yi mais du jël 3 euh, hectares di ko jaay ci euh, lu toll nii euh, hôpital Dantec. yaa ngi wax pour financer yenn travaux mais Pape Matar Mame Birame da koo wax léegi. Mhm. hôpitaux yooyu boo gisee dafa di hôpitaux yoo xam ni colon yi ñoo ko fi tabax. déjà boo demee ci la Dantec di nga gis bâtiment yoo xamante ni ça menace ruine et je pense que même le le la direction générale la direction de l'hôpital demoon na génnoon nañ fi defoon fii un point de presse pour alerter sur ça. donc man parfois dama naan sénégalais yi aussi kenn xamul yenn sénégalais yi bokk kenn xamul lu ñu bëgg parce que bu fekkee nee nga hôpital bi fi mu nekk nii mi ngi menacé ruine bâtiment yi et tout ça euh, il y va même de la sécurité de des de des, des personnes qui sont à l'intérieur mhm. aussi bien des malades que du personnel ben il y de quoi aussi réhabilitation bu ñu ko jógee di ko taxawal ñu mhm. nangu ko tey jii man sama souci du du affaire trois hectares yi ak yooyu sama souci mooy surtout le, le les malades malades yi nga xamante ni ñooy ñëw foofu parce que boo demee hôpital Le Dantec par exemple xam nga am na ci département yu bëri nga gis les personnes malades du cancer foofu la ñu nekk ma mhm. aujourd'hui ma préoccupation c'est de savoir tey jii parce que euh, bâtiment Julio Marie Curie bi nga xamante ni ñoom lañ ko affecté mhm. tey jii bu fekkee tëj nañu ko à partir du 15 août la ñu wax lañ koy tëj pour euh, les travaux. Mhm. ñooñu fan lañ leen di reverse fan lañ leen di yóbbu parce que ça demande également lii nga xamante ni moo di matériel bi nekk sur place. Mhm. am na peut-être hôpitaux yoo xamante ni amaguñu matériel boobu nga xamante ni ñii fa la ñu war a defee euh, seen ay euh, traitement fa la ñu war a ñëwee pour seen chimio et et tout ce qui va avec. Mhm. malade yooyu tey fan lañ leen di reverser. est-ce que duñ ñoom nañu wax nañ ñooy dem fële wax. bu fekkee moom foofu la ñuy jom exactement il faut que tey jii ñii nga xamante ni ñooy maladie qu'ils aient cette information là ak wala sax ñi nga xam ne ñooy personnes yi leen di accompagner seen médecin yi ku ci nekk ñu informer leen à temps pour que mu ñu mën a xam mhm. mais lenn am na dalal jàmm peut-être accessible ci ñëpp. c'est vrai kooku aussi beneen souci la ci ñi nga xamante ni ay malades yu nar a déplacé wu. mais est-ce que est-ce que du ñoom dañu jàpp ni euh, ñiy ñëw hôpital Dantec le plus souvent euh, ci banlieue bi nañuy jógee rek nañ leen bàyyi ci banlieue. non du ci banlieue bi nag foofu la ñuy defee fausse route parce que. Mhm. bëri na ñoo xamante ni ci biir localité yi au fin fond la ñuy jógee. feebar kay amul localité mais mais ngay dégg parfois ñoom ñu lay. naan que ñi ñëw ci euh, Dantec ay côté banlieue ba nañuy gën a non non moo tax ma ne la déedéet parce que ñooñu xëy na dañoo waxul dañoo gëstuwul bu baax parce que bëri ci nit ñoo xamante ni jógewuñu bàyyeekuñu sax Dakar mhm. ñi ñi ngi bàyyeeku Thiès ñi ñi ngi yeneen localité donc du pour du banlieue yi rek banlieusards yi rek ñooy ñëw fi di fréquenter foofu mhm. donc aujourd'hui c'est le sort de ces malades man moo may interpeller et puis euh, moom laa bëgg a xam tey ji ñu a fii buñ fi jógee dañ leen di wax seen prochain traitement par exemple dinañ ko mën a commencer à tel endroit à tel hôpital mhm. ñu mën a dès à présent xam ko ndax am na ñoo xamante ni ñi ngi en cours de traitement ñoo xamante ni peut-être waruñu interrompre seen traitement il de leur vie loolu yëpp dafa di ay ay ay ay ay problème yoo xamante ni loolu moo gën a urgent réhabilitation bi nag wax nañ ko ni ma ko waxee sànq rek direction bi génn na di demander à ce que ñu xoolaat ndax bâtiment yi yàgg na même la sécurité des des personnes elle est menacée. Mmh. donc man je trouve que ni euh, problème d'hectare bi ñuy wax bon si ça peut vraiment servir à également financer yenn travaux yi ñu ñu def ko ci def li nga xamante ni yu yu day doon ay construction yoo xamante ni construire en hauteur lay doon nga xamante ni dañ ca mën a am ay salles ak ay services yu bëri yoo xamante ni dina mën a. Euh, contenir euh, mën naa ne beneen euh, capacité de de de malade yoo xamante ni mooy gën a ëpp fuuf li nga xamante ni hôpital dans Dantec mi ngi ko doon am habituellement. Mhm. maam Birame est-ce que réew boo xamante ne respecté na boppam dëggantaan dina jël ay suufam di ko jaay te le plus souvent ay étrangers ñoo koy jënd tey jii boo xoolee état du Sénégal jaay na ay patrimoine am yu bëri te ñu ngi koy jaay le plus souvent ay étrangers la am na sax ñu si gën a bëri ay indiens la ñuy doon te ay somme yoo xamante ni yu yu yu yu dérisoire lay doon. xam nga euh, tout à l'heure maa ngi ne euh, dañu waroon a con dañu waroon a fexe nu ñu développer les autres régions mhm. de sorte que sénégalais yi ñëpp duñu ñëw groupe Dakar jàpp ne seen tekki fii la ne c'est vrai mais état bi am na ci solution pour gars yi toog seen région yi wala ñu dem dajaloo ci banlieue yi ay nu mu tuddati ci ginnaaw na état bi am na ci solution. Hmm. léegi boo dee pour nga dëkk fi. appartement trois cent mille. <laughs> dëgg studio cent cinquante mille. la. <laughs> mais bu boobaa baal na fan la am na sànq ku ma koy message ma naan yéen xanaa yëgoo leen li xew ci dëkk bi euh, tey jii sénégalais bu bëggee am appartement. du ko am pratiquement ci réew mi dañ lay naan étranger yi ni loolu wax dëgg yàlla violation flagrante des droits la. non dañ leen di dàq forcément parce que li am Dakar lañ dul amati njëg gi pour toog <laughs> loolu la de appartement côté bi côté euh, nu mu tuddati zone yu bëri fii nii dakaar pour nga am appartement boo xamante ni day wàcc mooy de deux cent mille foo nga dem côté parcelle ci nu ginnaaw parcel mais nu mu tuddati euh, euh, appartement bu baax zone yii nii yëpp minimum minimum minimum minimum deux cent soixante quinze jëm kaw. xanaa mooy appartement yu ndaw yi. mooy appartement yu ndaw yi mooy appartement am na ci yoo xamante ne nii sax man bëri dem benn waaye mu ngi naan ma appartement quatre cent quatre-vingt mille ma ne ko loolu moom xam naa pour genre Pape Matar yi la. <laughs> parce que bu ma si dëkkee waa OFNAC ñëw seet que bu dëkkee waa waa OFNAC ñëw seet si ma. te xam nga député dañuy dañuy toog ñuy ñu ñu ñuy naan lu euh, mu tuddati di bu ñuy wax seen bilan. ñu ci boole. Euh, location bu wàññeeku. waaw location bu wàññeeku may leen yéen xaw naa xamul leen ne vote loi boobu. musul wàññeeku wallaay. musul wàññeeku moom gën a garaawal affaire yi sax wallaay dëgg la. daf ko gën a garaawal. mais li gën a garaaw maam Biram ñoom ci seen bopp sax ñoo moom yenn immeuble yi aussi di ko loué. très c'est ça en mhm. am na ci mais bëri na ci xam nga lu gën a garaaw mhm. te les maisons conventionnelles yi Ramadou Laye di wax nii da eh, eh, am na si ministère yoo xamante ne nii da dañu am nañ place building mais duñ fa dem dañu préféré dem cay immeuble yoo xam ne état bi da koy loué à dix millions wala vingt millions par mois par mois bi ci kan la koy loué kan moom c'est comme <laughs> DG poste bi maa koy tudd gaa yi naan ma non non bu ko tudd day fay publicité. tudd fii fii la tudd ko fii fii keppaar gi la. mais xool euh, <laughs> dafa am foofu bureau bu nice bâtiment euh, nu mu tuddati espace boo xamante ni am na fa nu mu tuddati bureau bureau secrétaire bureau assistant euh, loo bëgg. mais mu dem loué ji beneen immeuble faneen <laughs> te rien ne l'explique faneen la dem loué ji immeuble. vraiment vraiment donc benn instant yow da ngay jàpp ne état bi quelque en quelque sorte day day day enrichir certains certains euh, opérateurs économiques certains agents immobiliers te doo xam agent yooyu ñan ñoo nekk seen ginnaaw. comme ni Ramadi wax. Mm-hmm. yow da nga koy moom. comme auto man kay kaa auto pompe yi rek xam nga. Mm-hmm. gars yi ñoo koy moom. dem loué ko. dem ba pare état bi ñëw loué ko si ñoom. c'est vrai xam nga ne ñooñu du ñu bëgg a solutionné eh, inondation yi dañuy bëgg chaque année ñuy pomper. Ramatoulaye mhm, mhm. yaa wax sànq nga ni euh, hôpital bi dafa nekk ci état de délabrement avancé. Mhm. mais du moom kese parce que bu ñuy wax aussi boo jaaree ci euh, Abass Ndao wala nga dem ci principal euh, di nga gis. pratiquement même chose ñoo fay nekk est-ce que tey jii nekkoon di liggéey par pàcc. di tëj par structure par service. Euh, du moins euh, di ko liggéey di ko réfectionner en même temps euh, gënul woon ñu tëj ko définitivement. mais est-ce que loolu aussi solution la Pape Matar bu ñu bëggee di réfectionner par service. Hmm. xam nga boo jëlee travaux yoo xam ne da nga koy engagé ndoo par exemple nga am service cardiologie. Hmm. nga am fait par exemple orthopédie hmm. nga am également ainsi de suite ainsi de suite. ORL ORL et tout ça. nga bëgg pàcc par pàcc su boobaa est-ce que du travaux yi du gën a yeex moi je me ñu defandoo ko benn yoon nga xamante ni ça va prendre un délé délé boobu nga xamante ni moom lañuy teg nañu fexe ba respecté ko ñu mën a indi ubbiwaat hôpital hôpital bi pour que malade mën a ñëw continuer seen ay mais cette fois-ci que ce soit boo xamante ni capacité bi day gën a ëpp li fi nekkoon moom laay wax sànq. Mhm. su boobaa mooy dinañu xam ni tëj bi jaroon na ko pour benn moment ñu yóbbu malade yi ñu. ñu ventiler leen un peu dans les autres structures hospitalières. mais capacité bi est-ce que dina capacité dëkk bi est-ce que dina gën a ngand. vu que déjà wàññi nañu seen superficie. wala da nga ragal dañuy tabax euh, ci hauteur yi. bon man awma exactement cette information là mais dama yaakaar ni bu fekkee tabax nañu en hauteur comme cela se fait maintenant dans dans les hôpitaux modernes ak tamit à l'étranger et tout nga xam ne dañuy tabax en hauteur dinañ am plusieurs services fi nga xamante ni mën nga gagner aussi bien en espace euh, li fekkee nag da koy tabax yépp en rez-de-chaussée ak yooyu. Mmh mmh Mame Birame tey jii euh, maa ngi la koy laaj sànq mais euh, est-ce que yoon la tamit euh, Sénégal bu ñu niwee dañuy soxla xaalis rek ñuy jël suñu suuf boo xamante ni bokk moomee la di ko jaay def nañ ko fële ca aéroport bi jox ko waa caisse de consignation et bizarrement caisse de consignation dafa ko gis muy sponsorisé làmb <laughs> bii nekk ay mbir yoo xamante ne vraiment yu xaw a doy waar la dañuy jël suñuy alal di ko jaay euh, xaalis boobu neen dañ dugaat ci kay sponsorisé wala dañoo may Gaston lu mu toog ah. lu mu organisé làmb <laughs> man tooj ba kenn dund ba kenn Gaston mooy ministre mooy ministre du divertissement de <laughs> dina la tontu ay yéen Gaston da leen sori dina dina la tontu alors Babiram loolu laay loolu sama laaj en fait est-ce que tey jii dañuy euh, dañuy dañuy jël parce que dañu manqué liquidité parce que aussi dafa am ay paradoxe daal ñoom da leen dégg ñun état du Sénégal liquide na signature am nekk na signature boo xamante ni bu am doole la lu mu soxla da koy am ba noppi état du Sénégal boobu mooy jël ay suufam di ko jaay ci réew moo xamante ni wala ci monde boo xamante ni suuf lu jafe la ci euh, si jamono yi. Euh, am na xam nga c'est euh, à distinguer. Hmm. am na pour man bradage foncier bi dafa am minimum trois yoo xamante ni mën nañ ci joxoñ baaraam. benn bi mooy euh, yenn euh, terres yi nga xamante nii dañ koy may ay autorité yoo xamante ni yeneen dëkk la ñu jóge gi nga zone boobu ngay wax yaakaar naa IBK am na fa kër le président Denis Sassou Nguesso tamit <laughs> am na fa kër mm-hmm. may may nañ ko fa kër te loolu état bi moo ko def mm-hmm. mu am beneen bradage foncier boo xamante ni mooy comme li Ablaye Wade defaloon yu fay jël plusieurs hectares de terre jaayee ko ko à nu mu tuddati moindre coût kooku dem jaayawaat euh, mètre carré bi mille fois plus. tuddee ko si dem ak yu fay. ma ngoog <laughs> loolu tamit fii la ñu fekk mu am beneen bradage boo xamante ni souvent sax. Ah. loolu ci àll bi lay amee maanaam ñu ne benn euh, entrepreneur euh, turc français wala lenn ñëw na nee na da am na projet agricole. ñu jox ko ay terres yoo xamante nii moom da koy exploité jël waa village ba di leen def ay ouvrier agricole Mm-hmm. ñetti bradage yooyu ñetti bradage yooyu yëpp boo ci gis amul ci bu ci arrangé sénégalais yi. amul ci bu ci arrangé sénégalais parce que comme nu nga ko waxee Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. donc benn surface boo si jël joxe ko rek war naa mën a retourner waat ci. sénégalais yëpp. Mm-hmm. donc boo ko boo ko jaayee mu bénéficier wu à un groupe groupuscule parce que tey jii nii. li ñuy sonalee gars yi bëgg leen a profité génne leen banlieue bi ndax inondation yi naan leen zone yi ngeen dëkk c'est des zones non aedificandi mhm. mais dañu faa dem parce que zone yu baax yi ñoom ñoo ko jël séddoo ko ay benn benn autorité par exemple nga mën a comprendre mu ne am na ci ci ci biir ville bii nii ay ay hectares loolu fan lañ ko teg kenn loo xamante nii normalement ça aurait pu servir à cinquante personnes kenn nit cundum teg ci loxoom hmm, na na doy na waaw loolu euh, teguñu ko fenn. aéroport euh, nu mu tuddati. Euh, Léopold ah. kii bi <laughs> Léopold Sédar Senghor bi ñu ko toxalee am na benn espace boo xamante ni mu yoon foofu xaw ma trente hectares la xaw ma mm-hmm. ñu ne tamit dañ koy jaayaat. Mm-hmm. nañu koy jaayaat daf lay leer ne mètre carré ba dañ koy jaayee. du PAM Matar yaa koy jën du man maa koy jënd mm-hmm. ay nu mu tuddati ay opérateur économique ñooy ñëw teg ci seen loxo ñu jaay leen ko lu cher ñu def foofu seen immeuble di ko luyewaat sénégalais yi te xam naa du nekk euh, xaalis bu ndaw. du sénégalais yee fay dëkk. ah waaw bien sûr déjà xool fële euh, fi pompier nekkoon garage mhm. pompier. Mhm. Mhm. xam nga foofu euh, foncier la boo xamante ni état Sénégal moo ko moom. jox ko marocain yi ñu jox ko marocain yi. Mm. marocain yi ñëw tabax foofu tour di jaay appartement 42 millions. <laughs> appartement nga wax de waxoo <laughs> waxoo ci di posé. loolu kan moo koy jënd. wallaay du ñun. ah du ñun <laughs> euh, ah. Maxu Mandela jëkkëru Coro euh, Mandela. Mm. bu ci kër gi. Mm. nee na les délais donnés par l' état du Sénégal n'engagent que ceux qui y croient on s' Wade waxoon des euh, du de Sandaga euh, mi ngi mel ni aussi quelque part euh, am na raison parce que waa Sandaga aussi joxoon nañ leen délai ni leen août bii nii dina fekk ñu defaral leen seen supermarché boobu xaw ma lu mu doon noonu ba ñu mun ci duggaat mais tey jii boo demee Sandaga amul sax benn benn benn mètre carré bu ñu fa jot liggéey. waaw moom laay wax ma ne c'est ce que Wade avait dit rek les de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Mhm. pour le moment nag li ñu mën a wax j'espère que lii il y de la santé des des gens je pense que duñ ko jël di ko tayle comme ni ñuy comme ni nga joxe léegi ni mu joxe exemple par rapport au tablier ou bien au commerçant de Sandaga kii moom il y va de la survie de la personne et santé moom yaakaar naa ni c'est tellement délicat que ñu nekk di foowee loolu léegi nag bu fekkee joxe nañu délai boo xamante ni ce qu'on attend c'est que ce délai soit respecté parce que mënuñu tamit euh, di tabax à à l'infini comme ça doo xam quand est-ce que les le travaux yooyu di jeex on espère bien que dinañ ko finaliser ci temps euh, tey bi nga xamante ni moom la ñu joxe en tout cas. Mhm. Mame Birame yaa ngi ko doon wax léegi ñu taxaw ci deux secondes rek euh, waa deux secondes deux minutes yi ñu dase Euh, mooy location bi euh, tey jii mi ngi mel ne loi bi dafa mujj contre-productive mais li ñu jaaxal mooy association consumérisme yi nga xamante ni dañuy woote ni dañuy défendre li nga xamante ni mooy askan bi mën nañ si jël Ascosen wala euh, beneen bi nga xamante ni mooy maître kii lu mu jiite lu mu fàtte jox ma turam. ma soxna kan ma soxna kan ñoom ñëpp tey jii dañuy dañuy défendre askan bi mais askan bi dafa mel ni gisuñu leen wala sentiruñu leen bu baax a baax. surtout Ascosen kay. waaw ñooñu moom ay politiciens lañ sax. parce euh. que kële moom politicien la. waaw kay moom ministre conseiller la woon ay jamono ci Macky Sall. Ah, ah. non non kële nag Ascosen ngay wax wala. waaw euh, kële nu mu doon Sall son leader la. Momar Ndao Momar Ndao waaw. kooku ah, ngay wax ministre la woon. waaw ministre woon conseiller ci wàdd ci Macky. Euh, xam nga ne affaire mais kii nu mu doon di bi moom lañ jëloon comme balistique. expert hmm? balistique <laughs> expert balistique. ah moo nekkoon expert expert balistique bi de. ah oui waaw da nga laajte. Sénégal dafa doy war de. Sénégal dafa doy war mais de toutes les façons. xam nga eh, bu nekkee am na ñoo xamante ni mérite nañ ku leen défendre au Sénégal mm. mooy les consommateurs. Mm-hmm. nga xamante ni tey eh, eh, da avril bi passé la la ñu wax ne la commerce direction du commerce intérieur bind nu mu tuddati les prix. yi ñu homologué pour uh-huh. pousser les boutiquiers ñu koy jaay uh-huh. mais gars yi faale wuñ loolu ah bien sûr mm-hmm. lu leen neex la jaay wax nañ fi ne wàññi nañ suukar bi uh-huh. tey la suukar gën a yokk dëgg la wax nañ fi ne wàññi nañ ceeb bi tey la ceeb bi gën a yokk léegi tout ça euh, euh, euh, xam nga les citoyens individuellement kenn mënul génn ci mbedd yi ne da ngay kaas il faut une certaine organisation en 2008 xaw ma 2007 la fi association yooyu noonu marchon man je me rappelle boobu étudiant laa woon. Mhm. daje woon naa fi ci euh, violon ba ak Momar Ndaw moomu ñu doon organiser marche mooy si si si si émeute de la faim. Mhm. émeute de la faim c' était précisément ça. ñoom booba boobu lañ gënoon yëngatu sax que maintenant. émeute mhm. de la faim yooyu amul woon lenn lu ko indi lu dul njëgu euh, njëg yi cher nañu. Euh, prix de denrées prix de denrées de première nécessité yokku nañu loolu mooy indiwoon émeute de la faim te jii nii la. waalo gën a aay donc <laughs> bu nekkee ne euh, comment dire les consommateurs ñu de manière organisé wuñ mënuñu mhm. de manière désorganisée génn na ñu ngi kaas mhm, donc ci organisation yi lañ ko mën a jaarale ñii woote ne manifestation parce que bëgguñu euh, bëgg nañ gouvernement bi jël ay mesures yu wàññi njëg gi population yi génn ànd seen ñoom mhm. mais bu nekkee ne ces organisations là tey am na si ñi leen jiite lu ñu seq pouvoir bi lu leen di empêcher ñu mën a véritablement poser des actes yu pousser gouvernement bi a ce que mu xoolaat njëg yi mais dañuy jàpp ne rek ay complice su état bi la jërëjëf maam Birame. jaajëf Pape Matar. Ramatoulaye. merci ba demee incha allah. bu tawee bu naajee